31 décembre effectivement euh, grève mon nom, parce que le secrétaire ou SDT 3S waxoon na ne une grève le 31 décembre effectivement il y a dem une grève mais dama y a ak man ay sénégalais La grève Si bu fekkee paralysé le système de santé bi xam ngeen bu ko revendication bi que a am doole bi ma xam technicien supérieur

dugal nañ projet bi bi créé créer corps administrateur de soins yi xaaruñu ñoom ñu marche wala ñu wax ce décret là président signé aujourd'hui ñun ren bi ñuy def demande de poste budgétaire mais demandé wuñu ay techniciens on a demandé des administrateurs de soins bac plus 5 mais kon ñun xaaruñu leen donc ce ñu dox nii par rapport à ce point précis pour man dox bi amul woon man grève boobu mun nañ si ñàkk yegg parce que li ñuy wax nii ñun lu si lancé nañ ko ba maintenant si nous dañ bëgg ñun ñu recevoir leen mën nañ recevoir toog ak ñoom waxtaan on est ouvert ministre de la santé il est ouvert à recevoir tous les syndicats de la santé suñu exprimer bu euh, euh, volonté bi tok waxtaan ak ñoom bu fekkene mom ba xat directeur de cabinet ou wala secrétaire général am dina dina tok recevoir au nom du ministre de la santé Nous ñuy def nous bu ñewon wax ñu ñun ñu créer audience ministre bi recevoir leen wala kenn si ñi nga xam ne collaborateurs, collaborateur am yi gën a recevoir leen la porte du ministre de la santé est ouverte